Right Watch daanaka génn na ko def ab rapport euh, ci réewum Sénégal di ko épinglé euh, ci wàllu nag àq ak yelleefu doomu aadama yi nga xamante ne gis na ne daal dañ ko bafoué fii ci mim réew rawatina crise pré-électorale nga xamante ne euh, ñu ngi ci euh, loolee nag mooy euh, suñu ñaareelu sujet d'actualité bi ñu war a waxtaanee ci seen émission l'essentiel du matin monsieur Abdou Nguer mu mel ne réewum Sénégal amati fu ñu ko épinglé ci wàllu li nga xamante ne mooy le droit donc humain bi ñuy bafoué fii ci biir réew xam nga organisation boobu Human right nañ koy wax. Watch wa eh, ñoom depuis ñu wax président Macky Sall nañ daganal góor jigéen mu bañ ba tey xeer buñ for rek sànni Sénégal. Mhm. ñoom seen objectif mooy na góor góor jigéen dagan fii ci réew mi loolu mooy seen combat li ci des yëpp dañ ko mbubboo ndax ñoom réew mi gisuñu fi opposant buñ teg fitna opposant bi mooy teg boppam fitna. Mhm. ñi ñuy jàpp ñooy lu seen bopp. Mhm. ndax mënu maa fekk alalu jàmbur ma làkk ko ngir sama propre intérêt leader ñoom réew ban réew lañ nekk de États-Unis bu fekkee mooy seen base. Mm. incendie volontaire ñoom ñaata nañuy tëj nit. nga dem taal yi fi jàmbur rek te tey ko mën nañu ci tëj sa ngiiru dund ñun fii ngay taal yi fi jàmbur di am ay liberté provisoire ñoom seen réew kuñ fa jiiñ terrorisme maanaam kuñ fa jiiñ xaw nga xaw ko jege. Mm. ñoom nuñ lay def. di nga xalaata dem ay élection kon caaxaan baaxul mhm. rew mi li ñu am xam nga nak nit ki nga bëgg ko bugg la mhm. nga tax nga koy traité ñom dañ ñu bëgg parce que ñom liñ bëgg moy suñu réew daganal leen seen seen sey yu bon yoy rew mi bañ président Macky Sall nee na mu ngi fi loolu fi am xam nañ loolu du am motax mbalit buñ buub rek mhm. xëppuñu ko bëgg a suñu deru rew waye xam nañ ni Sénégal fi ci Afrique bokku nañ ci dëkk yi ëpp démocratie liñ nangu Kagame du ko nangu Paul Biya lañ koy xaw ma ñu. Uh-huh. Cameroun yooyu yii duñ ko nangu. ñun Sénégal yii rek ñun rek ñoo ko mën a baale ñoo mën a toléré yu mel nii. Uh-huh. parce que bu ngeen xoolee mois de mars deux mille vingt et un ñu njëkkoon a génn mooy ba jour ba mbay wëndeelu ne mortel combat. <laughs> kuy mbay wëndeelu Ousmane Sonko bi mu nee mortel combat. <laughs> ñi njëkkoon a génn jàppoon nañ ci dix sept personnes mais après ñenn ñi dañ leen bàyyi woon. Uh-huh. xam nga lan mo indi wat ñu taal parce que jàppoon nañ bu ñu leen jàppaatee bàyyi leen 17 personnes la ñuy njëkk a mhm. ak ay centaine de personnes. Mhm. ñu demone ci seigne muntaha mhm. demander ko pour mu ñaan président Macky Sall mu jéggal leen. président sax waru leen wona jéggal ndax yaquñ alalam alali jambor lañ yaq alali bayi jambor président bayi leen ñu dem ci la bayi won biram Souleye job mi parce que sous contrôle judiciaire ndax ñom dañu jëlone ay xalé jox leen ay puces ñuy saga ay nit. ak Abbas Fall mi seeni i dossiers ñi ngi fa ba léegi. kenn traité wu ko. Mm-hmm. te pourtant dañ leen waroon a jugé. Sénégal liberté provisoire yu bari yi. Mm-hmm. moo tax yabeel gi am kuñ ci jàppoon dañ la war a defaral say documents yóbbu la tribunal àtte la li nga def nga tëdd ko. soit bu ñu lay bàyyi ñu bàyyi mais liberté provisoire yu bari xam nga bu ñu ne la Abbas Fall am na dossier. Mm-hmm. ñu bari xam euh, fàttaliku wuñu. Birame Souleye mu ngi ak ngir lan ay menaces de mort. lu garaaw lañ leen toppee. menace dossier menace de mort la seen jabar yi sax lañ arrêté woon parce que dañoo dawoon nëbbatu ji. tey bàyyi nañ leen ñi ngi wax seen xalaat. yow kon monsieur Nguer da jàpp ne détenu politique amul. jàppuñu kenn. man ba tey tudduguma fee politique. détenu politique menace de mort du fee politique. incendie volontaire BRT bii Sénégal yi bokk nga yàq ko. Mhm. loolu est-ce que mbiru politique la déedéet. xam lan man lan laa mën a jàpp détenu politique def nga manifestation yaa ngi ci mbedd yi. Mhm. policiers yi jàpp nañ la foofu comme bi ñu voté loi parrainage. Mhm. pourtant ñi jàppoon ñooñu dañoo fanaan xëy ñu bàyyi leen ñoom Idrissa Seck ñu bari nii jàppoon nañ leen. Mhm. est-ce que ñooñu dañ leen a jàppoon ñuy taal. ku ne da jóge sa kër def sa mboola ne dangay dem. Mhm. ñu jàpp la mais ñii dañ leen a jàpp ñuy taal ñuy toj ñii dañ leen jàpp ñu menace de mort ay nit ñii dañ leen jàpp ñu partagé adresse su kër nit pour bëgg ko taali. ñu am ci ay preuve yu leer. yu leer. Mhm. am na ci koo xam ne dafa dem ba kër fi ñu luye woon logé woon Adji saar mu filmer kër gi partagé ko ne fii la dëkk. xanaa kooku moom du détenu politique. Hmm. am na ñoo xam ne scooter am la yoroon di wër kër autorité yi. Hmm. di leen identifier di jox booyi code bi. man xam naa ko jour bi ñu ko jàppee am na ñu ma woo ma ne leen diw mii xamoon naa nañ ko jàpp parce que man ak moom def nañ émission benn télé bu ne ci fii ci dëkk bi damay bañ tudd tele bi bi ñu génnee. Hmm. man ak ñi ñu invité wu ñëpp ñu toog di waxtaan ak moom di ko yedd. ñu naan ko booy lii ngay jugtee nii ba ko parce que ñii dañ lay dugal mais trois jours lañ ci te nga ñu jàpp ko. parce que Anita Diop laa gis mu posté photom ma ne ah kii di diw ci laa ko woo injoignable ma xam ne. fay na téléphone am daawul après dañ ko jàpp kooku déet politique la. Hmm. caaxaan baaxut. Hmm. gis nga ñii seen rapport yi nañ ñu ko téyel Sénégal moom mënuñoo muus muus muus muus ba góor jigéen dagan fi. kon yow ku def da nga koy nëbb. kon jàpp nga ne yow ONG boobu ONG UN Rights Watch li nga légaliser góor jigéen mbirum góor jigéen rek moo tax ñu épingler Sénégal. kese ci bile rapport. kese gasa parce que na ma ne gasa reenu ñaam bi buñ la la ci sànnee ay buum <laughs> reen yi taxutu laa jóg caaxaan baaxul. <laughs>